47 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ۖ إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون الحمد لله نجي بايكو في الله سبحانه وتعالى دينو نتلي qissatu saalix muy dund yonent yàlla saalix ak njabootam saalix di dund ak ñu jafe dundal ba ñu laajoon ko mujiza saalix ñaan yàlla gëléem ñëw ca dëkk ba gëléem googu nag waxoon naa la ni saalix da waxoon ni mooy naan tey suba yéenay naan su gëléem bi xëyee naan ndoxi dëkk bi yëg déeg ya dex ya ak teen ya su ko defee waa dëkk bi du ñu am lu ñu naan dem nañu nag ba rythme boobu tàmbale di leen sonal ndax root altine jëfandikoo jëm talaata loolu ñu ko mën a rootal du bari surtout boo amul ay bagaan yu mag yu bari boo amul réserve foo mën a def ndox coono dafa daa di dikk bi ñu demee ba loola tàmbalee fitnaal nit ñi mu am juróom-ñeenti xale yu góor yu saay saay yu doy waar yu bon ñoom ñoo waxtaan seen diggante waat ne incha allah comme Saalix da leen a bëgg a sonal ak gëléem gi te gis nañu gëléem gi li ëpp su paree day dem wetu kër Salih fa gëléem gi fanaan ci gétti ga foofu di ut lu muy lekk di fortaatu gaa nag ni nan lañuy def ñu réñoo seen diggante bi ñu réñoo juróom-ñeenti bandi juróom-ñeenti saay-saay ci dëkk bi waatoo ci seen biir ne pour affaire bi jeex jarul ñuy rey gëléem bi waaye nañu liquider Saalix ñëpp am jàmm ndax xale bi bi mu fi ñëwee ba léegi kenn amatul noflaay xale bi bi mu fi nekkee ba léegi yàlla ne yonent nee na fatt nit ñi te ñun bëgguñoo dégg loola kon nañu liquider Saalix ñenn ñi ñu ne déedéet saalix defut dara saalix dafa waaraate rek ku bëgg a jël jël ku bëggul bàyyi te ñun ñoo ko laajoon keemaan mu indi gëlëm gi kon moom yoonu saalix newu ci kon ñun gëlëm gi ñuy lor la ñu amal affaire nañu ko rey bi ñu reeñoo ci seen biir ñi ëpp dañoo gis ni ñoom rey saalix mooy solution ñi néew ànd ak xudaar ibnu saalif ñu ne ñoom rey gëléem gi mooy solution ñu fanaan réunion guddi gi jàppal bàyyil ba dëppoo ne dañuy bàyyi ba guddi ñu dem yongaan yonent yàlla saalix rey ko ndax nit ñi noppalu moom la borom bi ne qaalu ñoom day waay wax nañ ba àgg ca te xaasamoo giñoo àgg nañ ci giñoo giñ goo xam ni kat billahi ca yàlla ne lanu bayyitannahu danañ ko fanaanoo guddi bàyyi ba guddi gi xaat ñu yongaan ko rey ko wa ahlahu ak waa këram ndax bu nu ko reyee moom rekk waa këram dinañ xam ni ñi ko rey ñii la waaye bu ñu ko reyee ku ñu fekk ci kër ga reyaale la mooy taqaasamu billah lanu bayitannahu wa ahla ma ni lii yàgg nañ ko waajal ay yonent yonent bu nekk aw xeetam jóg nañu ngir bëgg koo rey yonent yàlla Isa gis nga ko yahuud yi demoon nañ ba ñu dañ koy rey te pourtant defu leen dara yàlla ne yonent bi ne sam borom nee na ragal leen yàlla ba ci sunu yonent sallallahu alayhi wa moom it dem nañoo dem ba gaa yi lu ñu indi yonent bi tegg ko te li mu teg duñ ko fa mën a teggi ndaw ñi commencé koo gëm baadoolo yi jaam yi waa Quraysh daal di mer ñoom it def réunion yàlla wax yonent bi réunion ba ne ko dinaa la ko résumel te résumé bi mooy wa id yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw lu ci topp aw yaqtuluuka aw yaxrujuuk wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallahu xayrul makirin yàlla ne ko ñetti proposition la waa màkk wa ala rasihim abu jahal mooy dañu lay téye tëj la kaso ba nga dee buñ la tëjee kaso kenn du la mën a dimbale bi ñu waxee loolu ca réunion ba am na màggat mu fa ñëwoon muy iblis alayhi laanatullah iblis ne leen yéen xanaa da a dof muhammad da ngeen koo ëpp mbokk ci dëkk bi ba di ko tëj kaso ci dëkk bi te mbokkam ne fi xanaa yéen xeex bu dul jeex ngeen bëgg a créer loolu bu ngeen ko defee muhammad ak làmmiñam bu neex bi bu yuuxoo wax ba ñépp génn ñun ñu ko def danañ am problème da al bi mom du xalaat jël leen benen gaay naa pourtant pa bi wax na deug de da magat mo bon xalaat bu bon rek lay xalaat xalaat bu bon rek lay xalaat mu ne ko ñaarel bi muhammad neenañu kon dañu lay ray ben yoon bu jeex buñu la rayé xalé yi goor dekk yi yo ya, fami bu nek day génné ben xalé bu goor bu ñu la reyee ñu ne waa dëkk bi ñëpp ànd rey la fami ku nekk génne dara ñu joxe galak di yàlla mu jeex mooy aw yaqtuluuk bi ñu waxee loolu màggat ma ne leen bu ngeen ko reyee ba tey du tax mu sedd ndax dana indi xeex boo xamante ni dootul jeex seen diggante Quraysh te si ëpp leen leen doole mun a ñetteelu proposition mooy aw yuxrijuk wala ñu exilé la nga génn dëkk bi boo génnee dëkk bi ñu am jàmm paa bi ne leen kii bu ngeen ko takkee ci gëléem di ko génne dëkk bi bu yuuxoo xale yépp topp ko buñ ko toppee tekki ko te kon su boobaa coow dana am ñu ne ko waa yow mag mi lu ñu teg nga teggi kon nan lañuy def mu ne leen bitane mooy ngeen rey ko bu ngeen ko reyee génne galak lii nag la qawmu saalix préparé ñu ne ñoom léegi dañuy dem rey saalix rey waa këram su ko defee summa na nu wax li waliyihi ñeel ay kilifaam ay mbokkam ne leen maa shahid naa mahlika ahli bañ koy rey ñun fekkewuñ wuñ ko mooy maa naa mahlika ahlihi maanaam daal dañ koo bëgg a rey te duñu taq te gis nga gor bu dëgër kenn du ko rey sa loxo set ko reyee da nga naa taq soo ko reyee danga nga taq kon ñu ne nañu ko rey bu ñu paree ثم نقولن لوليه ني واخ اي كليفام يمينغو دريتام ما شهدنا مهلك اهلي با نكوي ري نون ييغون كو فك وون كو كون نك سونو يون نيكتي تو ان لا صادقون نون ني واخ دغ لاني اولف نينا بوي غيس كو واخ اك ياو نلا واخنا دغ تيتال تي موم كي واخ دغ دو سخلا دغ داي واخ تخاو دي خار نينينا كوي واخ ني دغ لا واخ loolu nag lu bari ci nit ñi dañ koy mel man kay li ma bëgg xam naa ni sax ngeen baal ma àq li may wax moom ngeen baal ma fu mu ko waxee rek mooy daa bëgg a jiital baalu doo a wax musiba wax joo xam ne boo ko naaree wax baalu àq moom boo ko waxee rek mu ëpp waaye wax ju normal booy wax waxaa rek nga dem ñu ne giñ nañ ci yàlla ne wa inna la saadiqun ñun ñu dëggu lañ ba ñu tëralee lii yàlla yabal ay malaaka ibnu abbas ne yàlla dafa yabal zabaniyatu naar malaaka yi ñëw wër kër saalix garde ko fees fa del gaa yi waaj nañ jël seeni jaasi préparé ñëw ba ñu ne tëll jub kër ga ibnu abbas nee na malaaka ya benn kuu lañ leen def rek dogate leen loolooy li njëkk a am ci mu samud su ñu ñoroon yeewu juróom-ñeent ñee naroon lee te ñu dee te li leen dóor xamuñu lan la ba ñu dee ku muus danga war a dellu ginnaaw waaye gis nga ku repp day dof day am fit da ngay rey moroomam léegi mu ne danaa ko venger wul te moo ci nar a topp ba ñu gisee ñee dee la jaadu mooy xudaar ibnu saalif taxaw waaye ah non man du tee rey gëléem bien ah, même bu ñee dee léegi nag ñële dee nañ te saalix mook waa këram bariwul xam nañ ni saalix rey ñii ndax nañ leen reyee gisuñ ñi leen rey gis nañ daal seeni cër ah kon mbir a ngoog borom bi ne wa makaru ñoom yéefar sa saalix doon waar dey pexe nañ makran am pexe yàlla ne wa makar naa ñu nit ñu pexe makran am pexe te mooy ñu fay leen seeni jëf ba rey leen wahum laa yashuruun te yëgunu ñoom daal jub nañu kër saalix tip tip deewandoo ndax xam nga malaaka duñu ko gis kon noonee la leen yàlla reyee ndax ñoom dañu doon fexe ngir rey saalix yàlla fexeel leen rey leen yebal ay malaakaam léegi nag yàlla na yonent bi fan dur xoolal kayfa kaana naka la mujj a nekkee aaqibatu makrihim mujjëg seeni pexe pexe ya ñu laloon lu bon lañu xalaatoon fan la mujj fu mu mujj këpp seen kaw ndax wala yahiiqu lmakru sayyi'u illa bi ahli pexem ku bon moom ca boppam rekk lay dellu kon gis nga ñooñee muy tis atu raat di juróom-ñeenti nit juróom-ñeenti bandi rey nañu leen kon yàlla ne yonent bi xoolal fan lañu mujj yàlla ne an naa ñun yàlla dammar naahum mokkal nañu leen wa qawmahum ak seeni nit ajmain mboole seen ñoom ñépp yàlla ne mokkal na leen ñooñu seen dund jeex waaye ñeneen ña ca topp seen mbugal yàlla da ko boole fii moo tax mu ne wa qawmahum ajmain léegi nag ñoom ñoo njëkk mu des wa qawmahum wa qawmahum mooy xudaar ak ña yàllay alage ngelaw ñii moom malaaka yi dañu leen a mokkal dóor leen di ñu sedd guy jeex tàkk waaye ñeneen ña des te dëgër bopp te ànd ak xudaar ñooñu yàlla da na a marloo yabal ngelaw ngelawal mbooya nit ñi dem ba kenn deseetul tuflit ci sa gémmiñ ñendaxit desetul ci sa bakkan loo noyyi mu tàng jër yuur gi bëgg a génn loola indil leen mbir moo xamante ne kenn mënatu dara ñu bóof yàlla ne mu yabal ngelaw ngelaw loolu di riddeeku garab yi buddéeku di dal ci kër yi birig yi màbb di dal ci nit ñi noonee la leen borom bi mujj a def fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawwaaha borom bi ne wala yaxaafu uqbaha kon gis nga ko yàlla da leen a mujj a mokkal ñoom ñépp emu ca waaye kër ya sax daa mokk ba dara des ba ndax kër ya dañoo simpeeku birig yay naaw seng yay naaw galva yay naaw lépp di naaw di mbëkkante xam nga loolu fu ñu dajeeg nit buñ la mbëkkee nga dee léegi nag ñooñu nañu ponkalee woon da jàpp ne ay ponkal lañ kenn mënalu leen dara yàlla ne boo gisee fa ñu tëdd ka annahum ajaazu naxlin xaawiya kenn ku nekk ma nga ni bàkk mel ni mbër mu jaaxaan waaw garabu tàndarma bu ne bépp daanu misaal moomu la yàlla misaal ci xaw mu saalih ndaw ay ponkal ay ponkal ba yàlla misaal leen ay garabi tàndarma kon borom bi ne fatil ka lolé sen bu yutahum moy sen kër ya xaawiya kër ya mujj wet wéet gàwweeku lépp deñ lutax tax am borom bi ne bima zalamu ci sababu togn bañu togn yàlla ni yonante bi inna fi zalik naka aji nek la ci togn yàlla yàlla mbugal la la ayatan keemaan li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yaalamuun danañu xam ñan ñoo mën a mucc mooy ñi xam waaye ndax ñi xam bari nañ déedéet ñu néew lañ jamono bu ne doomu aadama day gis lu rey ay moroomam mu des ca loole te misaala nga ciy ñëw léegi legi ngay gis fi ku man di xale yi diko yuxo mu tubayam bala nga pare moromam mi ko don japp diko ko momit suba mu mandi dafa melni ni jajju dafa melni ni du legi lañuy ëmbal jigen wal iyad billah seen waa dal ci kawam ginnaw suba keneen nit ñu ëmbal waaw lan moo tax xalaat legi nit tooñ fi yàlla ñu wax baaxul baaxul balaa ngaa pare keneen defaat ko lu tax ndax walakin aksara saranaas la yaalamuun li ëpp ci nit ñi xamuñu toujours ñay mucc mooy mbooloo mu néew ba ànd ak yonent ba wala bi ànd ak yàlla kon ixwaan yi bu ñu bëggee mucc yoon bi moom yàlla wan nañu ko mooy lan mooy ànd ak yonent yàlla mu yóbbuñu ci yàlla looloo ñu mën a musal balxiis daa am fulla moom ba ba mu ñëwee dafa ni suleymaan nañu ànd jëm ci yàlla kon balxiis daa dinay mucc ñu nit bu ñu bëggee mucc noonu lañuy def dañuy ñëw ànd dem ci yonent bi mu doy ñu sëkk waay waay ponkal mu toll yonent bi ku ko am looy dolli keneen fan moo manqué ba ngay ñambaas ndeysaan maa gis ñaari xale yu jigéen mu taxaj ji ba muuru ñeneen dañuy challenge lu ñuy wax ñun ay ahlu sunna lañ yàlla lañu gëm ay yonent bi lañu gëm waaye nag ma ne oh, fa la yàqoo waaye bi moo ko yàq waaw bu juboon waaye du ci tege waaw bu juboon waaye du ci tege yàlla la ñu gëm yonent bi lañu ñu gëm doy na sëkk boo indee waaye rek c'est parce que ngëm gi du dëgg gëm Muhammad da dul dëgg ndax li tax nga gëm kële dangaa jàpp ni mën na la lu la yonent bi mënalut moo nga ne waaye man lii laa keneen ki ne waaye man lee laa gis nga ko loolu boo seetloo ñi koy def boo amee seetlu xool leen ñi xam nag ñoo daan ay xam nii kenn ki moom mu leer moom lu bir boo xoolee kanam xam ne ay shayatin moo ne ci moom xam naa ne ay mbokkam war nañ koo faji kooku day crise na na ñëw seet si ma bu ko neexee wala mu dem feneen waaye kooku moom daa daa am problème jinne moom du ma du ma nag indiqué kan la mais am na ci koo xam ni moom oh kooku ay mbokkam war nañoo jóg faju ko daa am problème gis nga loolu naka la nit ñemee ni yonent bi laa gëm ndax yonent bi nit dina ànd moom mu am fu des jamais loolu daa doy sëkk kon loolu moo tax tey lan ngay gis ci sunu réew nit mënul nekk jullit rek rek rek rek rek ci topp ci yonent bi rek rek rek boo seetloo ñi ëpp problème ci réew mi mooy ñu topp yonent bi rek ñu am waaye bis boo bëggee am jàmm rax ca keneen boo ci raxee keneen moom dinañ mën a toog ak yow jotaay jotay bo nek lo wax ñu ne eskay yaay waaja waye bo ne man Muhammad rek rek ñu commencé di la xoli beut indil la ay mbir kon yàlla ne wa anjayna alladhina amanu musal nañ ñu gëmon yonent yàlla salih wa kanu yattaqun ñu nekk ragal yàlla yàlla ñu yàlla may ragal yàlla yàlla ñu yàlla may mu bàyyi lola ñëw ci nabiyullahi lut misaal bi ma lay wax léegi mi ngi nii mu ne wa luutan yonent yàlla luuta ngoog de yow yonent bi fàttalikul id qaala ba luut waxee li qawmihi nitam ña ne leen mooy yéen atatuuna alfahisha moo ndax da ngeen di indi ñaawteef te wa antum yéen tubsiruuna ngeen xam ne lii ñaawteef ñaawteef googu bon gi mu bon léegi ndax nit ñi ragal nañ ko déedéet léegi da ngay xool TikTok xool féet bu gis ay góor jigéen senegale gis góor jigéen mauritanien man nag boobu mu gën a jaaxal góor jigéen mauritanien xaw ma nu mu war a mel boobu moom jaaxal na ma lool góor jigéen bu sol garaam bu ñett di di lëfër lëfëri boobu moom jaaxal na ma dégg naa leen góor jigéen pël fuute am na hay yéega yoo waaye ndaw eng eng ba sonn góor jigéen pël fuuta loolu xel xalaatu ko woon léegi góor jigéen pël fuuta góor jigéen naar góor jigéen Sénégal léegi affaire yi fan la jógee fan nga xool góor jigéen bu ñemee taxaw di wax di def geste jigéen tiitul parce que dafa exilé wu dem États-Unis États-Unis moom mooy bàjjenu góor jigéen ñi moom mook France moom moom nee na moom ku bëgg ku bëgg ñëw Europe ma utal la kayit déclaré nekk góor jigéen jaamukatu xaalis yépp jóg dem Europe déclaré ne ñun ay góor jigéen lañ suñu dëkk dañ rey bàyyi den ne la am kayit góor jigéenal ba mu neex la ndax maay sa bàjjen nga nekk fa yàlla dina seetaan ngay influencé di def lu la neex ah. yàlla na yàkkamtuwuma la bisa ngi ñëw te loolu luut moom la waxoon ay nitam ba mu ñëwee fekk góor ña ba jigéen ña ba leen jëm ci ñan seeni moroomi góor booba la jigéen ñi waroon a jóg bu ñu jógoon tàcc góor ña ñett ñett gàjjate leen yuuxu leen mbir yi dakk waaye Iblis mooy topp jigéen ñi naa leen <laughs> non lii garaawul quoi sa jëkkër yow da ngay gis góor jigéen bu am jabar am doom bu liggéeyee nga xam ne kii kii la mais dale ka xam ne carrément man man man góor jigéen la man man góor jigéen la wallahi ladi laa ilaha gayruhu yàlla mi bind asamaan ak suuf xam na lii may wax yàggul matul deux mois nit toog naag man di di wax di jooy ne oustaz man dama def yàlla loo xam ni saa bu ma ci génnee duggaat jooy jooy jooy ba bëgg dee lu ma koy tax def xaw ma ko lan la dafa may xool wax lan la mu ne ustaas man góor jigéen ma ne subhaanallah mu sëgg te man ustaas lii xaw ma lan la ustaas lii bu dikkee ci man par force mu jóg dem mooy sama borom doog a xam leen ni iblis da koy def am na njabootam goo xam ni seen bërëb ci nit mooy awraam loolu lañuy ñuy seen bërëb ci nit mooy fowee awra ku jigéen fowee awra ku góor gi bu ñu ko buggee yàq gannaawam lañuy ñuy ba pare dugal ci xel mi maanaam dara dootu ko satisfaire ci wàllu jigéen jigéen dootu ko satisfaire il suffit que ñu nax ko ba moyloo ko benn yoon góor féete ko ginnaaw soxlaatul jigéen loolu vice la boo xamante ni lu très dangereux laa lay wax nii moo tax bu yeboo ñu góor góorlu ci suñuy azkar góorgóorlu ci di jege suñu boroom góor góorgóorlu ci di moytu yenn jotaay yi wallahi ladi laa ilaha gayru bëri na ku ko mel ñu koy yedd wallahi tayu ko bëri na am na nag ñoo xamante ne moom deretu bandi moo ne ci ñoom am na kadalik même ci jigéen ñi am na ñoo xam ni bu leen vice boobu dikkalee il faut ñu njaaloo doog a am jàmm waliyaadu billah kan lay dal nag mooy ki sori boroomam moo tax nan nga war a soree sa borom xale bu jigéen xale bu góor man damay tiit léeg-léeg nit da ngay toog ak moom di wax ne ko jàngal ayatul kursi mu ne <laughs> mënuma ko de billaahi wallaahi xale bu jigéen am 25 ans 30 ans góor góor am presque 50 ans mokkaloo ayatal kursi laa ilaha illallah jullit mokkaloo ayatal kursi yow yaa yësti ñi te billahi noonu la bëree wallahi ñoo xam ne da nga naan qul al kafir ñu lay xooli ba man mënuma ko dee loolu lañ lay wax nga ne mais ñun ñun fan la ñu toll tey fan fan la ñu toll tey néanmoins yii yii nit da ko war a mokkal loo yées yées yées yées xanaa boo mokkalu sa amma ba suuf au moins yi ñëw ay ayatal kursi ay laqad jaakum ay amana rasul yooyu au moins war nga ko mën te na la bir ni boo ko jógalee benn guddi benn une heure de temps balaa pare nga mokkal ko mais seytaane moo la koy xañ moo la koy xañ application yëpp mën nga ko temps yëpp jox nga ko téléphone mais aayatal kursi boo ko doon jàng day mel dañu dóor ay ay ay ci sa kaw loolu mbokk yi ku mu nekk ci yow war ngaa jooy war ngaa jooy tey benn xale bu jigéen jeeg dama koy xas di ko xas di ko xas ba mu ne oustaz incha allah balaa maa ñëw fin de mois naa ko tari man ko boo ñëwee boo ko tarul ma xasaat la xale jigéen aayatal kursi yi mu mu ree ne ma mokkalu ma qul yal kaafiruun mokkalu ko subhanallah ñun ñun fan la ñu jëm te da ngay gis yu ñàkk fayda ñu mën koo mokkal wal iyaazu billah loolu nag mbokk yi bu ñu demee ba nekk jaamu alal alal moo ñuy wëlbati ndax iblis dafa am ci njabootam ñoo xam ne alal rek la teg ci bakkan fii lañ koy teg ci sa kaw bakkan sa bët moom rek am na ñoo xam ne alal nu ñu ko mën a amee amul problème moom daal nanu ko am rek nanu am seen mbir daal naa bokk rek mooy naam rek nan lay amé je m'en fous ndax danañ ma xass je m'en fous ndax nima amé amee ñaaw na faalewu ma ko loolu mbokk ku mu nekk ci yow bu yabo nga xamni faju ji jotna kon lut wax ay nitam ne len a innakum mo ndax yéen lut xam ngeen yonte yàlla Ibrahima ko yar doomu frère la Ibrahim nekk bàyyi ci moom ne ko sama borom nee na am na dëkk bu nekk fee ci ginnaaw Palestine ñu naan ko Sadum am na xeetu bon ñu fa nekk nee na yónni na la pour nga dem fa ndax man mënumaa daj fii yëpp mënuma ko dëkk yi wër yëpp Ibrahim di fa dem mais mënul àgg barakallahu fiik mu mënuma àgg foofu sama borom nee na yow nañ la détaché mu yónni la nga nekk yonante nga dem foofu yàlla détaché lu wut luut ñëw gi mu ñëw cëpp ci dëkk bi nekk fa takk fa soxna commencé gis ni dëkk bi ñoom góor ñi dañuy jëfandikoo góor ñi wulis jigéen am ca jigéen ña ñoo xam ni dañoo bona bona bon ba dañuy jàppale góor ñi ci jeu macro boobu ñuy def borom bi ne leen ci kàddu luut a ko mu ndax yéen la taatuuna rijaala da ngeen di sëy ak góor saxwatan ngir sàkku bànneex min duuni nisaa fi jigéen ñi laa ilaha illallah bal antum qawmun tajhabuun yéen yéen a bon yéen a réer ah! ñi koy promouvoir de adduna bi ñoo ko moom de ñoo ko yilif de gis ngeen JO yi moy événement sportif bi gën reuy ci aduna bi mooy événement sportif bi nga xamni li ci dëxëñu ci ay milliards ken xamul nu mu toll mais moy bi gën yiss wallahi les grands francs-maçons ñokoy diriger loges yi gën mag ñokoy diriger notamment ay FMI ay banque mondiale les multimilliardaires ay ñoom Bill Gates gars yi créé TikTok borom alal yooyu nga xamante ne multimilliardaire lañ dañoo nekk ci mbir moo xamante ni mooy dañoo bëgg fexe ba àdduna bi bu ñu yàqu lépp trois quarts àdduna bi yépp ñu déranger ko te nag réussir nañu wala réussiruñ ah réussir nañ de benn moo leen jaaxaloon ci dix ans yi commencé nañ koo réussir mooy góorgóorlu nañ ba léegi fexe nañ ba moom jigéen gu koy mënti def doo muuru commencé nañ koo dindi bi ñu demee nag léegi ba commencé xam nga man man man man li ma gën a yéem man daal affaire bi jaaxal na ko quoi jigéeni jullit nan lay muuroo ba pare sol seen cambal cambal yooyu loolu sax du càmbal càmbal de xanaa baat bi laa rusa tudd rek mooy sol silib rek waaye léegi nag maasa yaa ni xijaabu ki yaa Zeynab léegi bopp bi nga laxas moom bàyyi li ci suuf lépp moom moom loolu lan lay tekki ah wallahi dafa am ay umuur xafaaya taxta ziyo am na ay mbir yu làqu ci suuf bi ci jiitu mooy gis nga les francs-maçons ñoo ko dirigé de ñoom ñoo ko moom te ci biir ziyo bi bi gaa yi nekk ci seeni zëg yooyu ñoom ñu ngi ci seeni loose di def seen jaamu boobu ñuy jaamu parce que dañoo soxla force boo xamante ni mbooloo moo koy créer xool leen JO bi li ci nekk ci mbooloo nu mu toll xool leen wàllu li ligne sportive bi façon kii bu ne indi nañ ko bu ne indi nañ ko mais xool leen tey ki ñu gën a alak toroxal ko mooy jigéen jigéen buy daw du sol flottant xam nga flottant moom dafa ëpp xaram sax ci góor mais jigéen du ko sol lan lay sol daanaka dessous ak silip lay sol génne nañ kersa rey nañ kersa kersa deena laa xayaa wala iman laa islaama wala taqwa xale bu jigéen mineur ñuy muy daw di watang watangi mel ni gol di dàqante lan lay dàq médaille d'or lan lay dàq jigéen di sol loolu geleetu ko sol ko ni ngañam taxaw trente jigéen lan la ñuy def njëkkante daw boo jógee foofu demal natation xoola jigéen ñi lu ñuy sol waxuma sax seetaan ko sax dafa xaraam ci ko waxi seetaan kon waxatuma ñu koy def ci natation xoolal scrim boo dugg ci wàllu sport yi da nga fekk jigéen futti nañ ko comme ni ko ndeyam juree woon nga ñëw ci biir basket la même ñu ci yàq-yàq boo xam ne nag li nekk ci ginnaaw du sport bi de xam nga lu nekk ci ginnaaw état yi nga xam ne dañoo jege islam foofu la ñuy jëndee seeni président foofu lañ leen di xoojee invité la nga ñëw ci biir loge yi léeg-léeg nga ñëw daje gaay daje gaay bon sa dëkk mën nañ la financé ah. lan ban problème nga am nga ne non man dama am problème mu problème mu quoi dama am problème nangam non du problème financé mën gis nga noonu lañ topp di la nax di la nax ba rocc sa ngëm lu fa nekkoon ci ngëm danañ ko dindi bis booy tàbbi ci loge bi di nekk franc-maçon doo ko yëg da ngay def ba ñu ne eh eh ma ngay lab de kaay kaay kaay kaay mënatoo génn ñu bari noonu lañ leen def yàlla na ci yàlla musal sunub gaa yi mucc ci yombul de mucc ci. moo tax nañu ñaanal suñu njiit yi de gis nga première mandat kenn du ci tagg njiit Afrique ku muus sa premier mandat doo ci tagg njiit premier mandat première trois mois première un an premier deux ans ngëm gi fi lay nekk non yàllaa ma fal parce que yàlla mais xam nga kañ lay feeñ soo demee ba commencé nag visu état di commencé dugg sa yaram président maa ngi lay ñaan di la fàttali bal jox loxo jigéen dafa xaram dafa xaram de dafa xaram dafa xaram daganul ci président daganul ci premier ministre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mbaam xuux bu dugg ci foos génn nga accolade ko takko ak mon mo gën nga jox jigenu jàmbur loxo wé le problème ñaka jox jigenu loxo mais chef protocole na non président xam nga aduna quoi il faut nga xam nga rek quoi faut comprendre ngay léegi nga commencer nak daaw ko demee boy commencer diko def da ngay jéki boy joxe loxo da ngay lox sax ñu xam ni ki daaw ko def mais boko ko ben benn ko ñaar do to am problème bo taxé légui yaay ñëk def ni sa loxo talal dañ lay ñak lo fay dé sey ngëm lañuy commencer tafu ci yow premier ministre jox jigéen loxo dafa xaram de wallahi dafa xaram te wallahi ku ko def da ngay am bàkkaar wallahi nekk président taxul yàlla daganal ko ci yow nekk premier ministre taxul yàlla daganal ko ci yow jox jigéen loxo dafa xaram amul benn protocole benn loi bu ñu tëral ci constitution bi ne président daa war a joxe loxo amul amul fen amul kon bis bu ñu la tàmbalee di nax foofu ngay tàmbalee boo deful ndànk di jox jigéen loxo yenn yi doo ko garaawal bu yàggee day dem ba dangay ñàkk la nga doon am benn par benn benn par benn ah baro lu mu fi benn mandat lay def changé jox gaay ana baro ah? fu mu ne suñu mbokk male bii lu mu fi waxoon 6 ah 6 mois gudd na de lu mu waxoon 6 mois lu ko fi ba léegi gis nga iblis ku doy waar moo tax président dafa soxla ñuy nekk ci wetam di ko rappeler di ko rappeler ñàkk a jox loxo du la wàññi dara du la yàq dara du la xañ dara dara dara maa ngi la koy dénk te nag moo lay mucc loo de soo njiitee bëgg a mucc moytul joxe loxo lu bari am na bandi yoo xam ni li ñuy def ci seen loxo yi lañ koy def fu ñu la nuyoo am la njiitu réew di def fu ne mu lekk lu ne mu lekk ku ne mu àndal lu ne mu déedéet njiitu réew day réserver boppam de gis nga ni gars yi di vérifier sa lekk ci ndax empoisonné nañ ko walla leneen loolu yomb naa vérifier mais buñ ko njabaree machines yi mënuñoo détecter njabar mënuñu ko mënuñu ko boo nekkee président moytu lekk fu bëri moytu ko moytu ko de moytu lekk fu bëri baal xel lu baree baree baree bare ah waaye bu du woon ak institution la dinaa wax lu baree bari mais lépp rek kenn mënu koo wax am naa incha yàlla mën naa dogal bis dana ñëw kon gis nga JO yi li ci làqatu dafa faut lol lol lol lol, bokku na ci dañuy promouvoir góor jigen dañuy xex diine tay ji ouverture bi lan ngeen ci jànge ouverture jio bi lan ngeen ci Vous yeneen diine yi mer parce que dañoo jël seeni xalaasa di ko foyee français yi dañoo jël seeni xalaasa seeni ngëm-ngëm foyee ko parce que dañ leen bëgg wax ni ñun gëmuñu yii ngeen gëm ñun àdduna la ñu gëm alal la ñuy jaamu ay franc-maçon lañ suñu yoon looloo fu nekk moo tax ñu dajale ñi yées ci nit ñi waaw ñi yées ci nit ñi rapport yi nga xamante ne boo leen xoolee sax xam ni yées ci seen kanam lay rot waaw waaw jël ay snap jox leen ay ay flambeau bi ñu ko nga xam koo xam danga tama jàma non gis na gars ah. man li may xool affaire bi di ko ci jànga est-ce que ñu bëri ñu ngi ko ciy xool moo tax ndeysaan xam lu bëri wax tuuti dafa baax mais gis nga gars yi yàq bi ñu yàq day bëri lool fan lay yóbbu nit ñi nag daf ñuy yóbbu ci ñu leen di fekki di leen fekki ba kersa dootuñ ko am dootuñ ko am dootuñu am benn rus-rus kon loolu mooy li làqatu ci ginnaaw Jeux olympiques yi li ci nekk ci ay musiba yàlla rek moo xam ne mu toll loo ci mënti am ci médaille la nga fay ñàkk ci ngëm yàlla kenn xamul nu mu toll moo tax luut wax ay nitam ne leen bal antum qawmun tajhaluun yéen daal dëgg-dëgg da di sàkku ay góor bàyyi jigéen yéen da ngeen a réer dëgg dëgg dëgg dëgg da ngeen réer waaye bi luut waxee loolu wax gaa yi ngóor jigéen baaxul lu ñu lay wax la góor jigéen ba waxoon ba ko dof bi ne ñëpp nee nañ góor jigéen la da ngaa bon mu ne du man dong loolu la ko fa góor jigéen def pikin gii la ko la ko góor jigéen waxee benn dof waaw daf moo tax di ko xool ba jàng ne ko góor jigéen naa mu ne ko du man dong xoola xoola bara ci du man dong mooy day continuer tey góor jigéen boo fexoon ne la baaxul daf la régler sa problème maandul maandul sa nekku ci nangam damm ay kàddu damm làmmiñ euh, raf lex-lexal subaan ñàkk jom borom bi nee na seen tontu ñoom góor jigéen ña mooy lan yàlla ne ci xoola ma li ñu tontu luut li leen luut wax ni mu amoon solo yàlla ne fama kaana jawaaba qawmihi nekkul mukk mukk tontu góor jigéen ya illaa an qaaluum ba te ñu ne axriju ala luutin min qaryatikum kii bu mu ñu sonal génn leen ko dëkk bi génn leen ko dëkk bi lu tax innahum unaasun yatataharuun dañuy jéem a laab laab lu fii laab amu fi ah fii góor day sëy góor fii bu la ñu jaay yàlla bu leen ñu jaay yonent bi bu leen ñu jaay ibaadu bu leen ñu jaay ngëm yowmal qiyaam na yàlla def lu ko neex wallahi loolu lañ leex yowmal qiyaam na yàlla def lu ko neex parce que lan la ñuy jaamu alal moo tax yonent bi ne taisa abdu dinaar torox na alku na ñàkk na ñu ne ko kan mu ne jaamu xërëm loolu la ñuy wax génn waa kër luut yi dañuy jéem a laab-laablu yàlla ne fa an jaynaahu ñu musal luut wa ahlahu ak njabootam njaboot jabar ak doom la waaye dafa am fii istisna ndax luut jabaram ci ñi yées la bokk ndax jabaram dafa bokkoon ci ñuy macro gan yi di ko wan ñële ay mbokkam ndax dëkkam la kon bu góor ñëwee day daw ci gaañale hey tey am ngeen ay góor ñëw nañ dañu ñëw kon jabari luut mi nekk ak luut dafa yées comme ñële moo tax borom bi ne fa an jaynaaw naaw musal nañ ko wa ahlahu ak njabootam mooy ñi ko gëm ci ànd ak ngëm yàlla ak ñaari doomam yu jigéen yàlla naa illam raatahu damay bañ ngeen jàpp ne ahlahu jabaram ci la bokk de mu ne ba mu des jabaram illam raatahu ba mu des jabaram qaddar naaha yàlla ne na dogal nañ ne minal gaabirin dana bokk ci ñi nga xamante ni ñooñee dañuy daal di lab waliyaadu billah fan la lab ci mbugal ma ndax mbugal moomu kat buy ñëw la muy yàq dana bari lool lool lool mbokk yi ah. bu yeboo ñu xam ni day réew ku ko bëgg a defar di nga taxaw de ñun ndaw ñi noonu la tabax suñu réew de ñun ñëpp bu kenn ku nekk jógoon ne dañuy defar réew mi léegi réew mi defar incha allah léegi mu defar waaye nag ah suñu bëggee defar réew mi dana metti de yàlla defal na ma tawfiq maa ngi koy sant bu baax juróomi at juróom benni at juróom ñaari at bi ma calculer démb bi fi ñële nekkee ba biñ fiy jóge néew na ajjuma bu ma doon wax

sunu mbokk mi livre bi mu bind wax dëgg yàlla déglu naa ko attentivement Cheikh Yirim ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dëgëral ko ci xalaat bi mu am ndax it ku daan bind ci leneen bu ñëwee ba bind ci yonante bi li jaadu nag mooy ñu rafet nag te xam ne sant yàlla ndax gëstu na nag dara waaye bu leen jël bin bin rek di ko ko xasee non non anglais bin lay wax français benn lay wax wala problème mën na am lapsus rek ñaareel bi wax bi mu wax ni Aliyu ibn Abi Abi Taalib jarbaatu yonent bi la loolu xam na ne du jarbaatam mais njuumte day am ci wax mais nañu xool livre bi balaa ñuy kaas jàngkat yi bu ñu xool démb ci fi mu féete woon appartenance su politique am bu mu tax ñu bàyyi njëriñu livre bi di ko xas xale yi jigéen di challenge ak yooyu mais lim bind nañu xool ndax noonu la wala du noonu ndax dafa wax pour président baale parce que dafa xaw a xeeñ ci wax ji da xeeñ nag parce que Sénégal moom xamul lu fi nit di jaay waaye du mën a wax daf ciy xeeñ parce que bu ñu indee bi ya maanaam kon daal président ak Sonko li ñu ciy déggee dañoo war a baal ñi sàcc alalu réew mi Sonko président réew mi moomu leen alal bi de du seen alal de mënu leen koo baale amu leen prérogative am ñi jël alalu réew mi te xam nañ ko ay at ñu ngi wax man am na autorité bu moo xam ne dafa ma mus attaqué man attaqué ma lan la ma attaqué yow li ngay wax ci détournement dafa bëri nangam nangam te wallaahi kilifa la woon ministre la woon fii ci réew mi xam naa da caa bokk moo tax mu jàpp ne saa mu waxee mu xat mais ki sàcc alal lu ñëpp bokk lan moo indi chômage bu bëri bi mil milliards Covid yi buñ ko defoon ci réew mi. est-ce que du ñu mën a dimbale ndaw ñu bëri borom immeuble yu bari yi ay ancien procureur ay ancien juge ñu waroon a jubal jël alal réew mi sàcc ko mais loolu kenn amul droit baal leen dañoo war a goqi bi dañ ko war a génne sinon ñu teg leen ci yoon loolu mooy dëgg teg leen ci yoon ñu génne alal bi daw nag taxut mucc boo dawee sa papa sa yaay ne fi foo jëm. li nga sàcc foo koy lekkee ji sa jabar mi ngi fi say doom ak foo leen di yóbbu moo tax gor su nekk danga war a xalaat ëllëg danga nga war a xalaat li ngay jox say doom xalaat ko buñ la fi tàggee ci ay oto yi rafet te moomoo ko xaw ma kan boo tëddee doo nelaw <laughs> doo nelaw de bu la gaa yi taggee géwél yi way la tama yi tëgg la danañ la tagg waaye boo tëddee doo nelaw parce que jour sa xel ne la sa nga xol fetu yi xol xol koy gis sa bop xel du la baye day ñëw sa ci bu la gars yi diw borom alal la mun na ñoo mën a fen ngay sàcc am la borom da wajhadu biha wastayqanatha anfutuhum gis nga sa xel chaque jour da lay yedd ko xam da lay yedd te mëno ko dóor nak fexel nga libre da lay yedd te mëno ko dóor fu nit ñi ne yaay waaja mu ne laa ndax dëgg est ce que yaay waaja nga ne sëgg na xam naa duma waaja de waxal doomam ku sàcc alalu réew juboo baaxuloo ku soxor nga te da nga yore posture raykatu nit nit naka la mën a jëlee ay 2000 mètres carrés yu ñu la jox nga xamante ne leer na la ne lii du alal bu lew nga mun koo jël en tant que procureur ñu mën laa jox 1000 mètres carrés nga mun koo jël en tant que juge ñu mën la jox oto 250 millions nga mun koo jël ah jël détourné alal boo xam ne billaahi doo ko jeexal alal boobu nga sàcc banque yi nga ko yóbbu ay tubaab koy jëriñoo nga lor sénégalais say jarbaat say doom say rakk say mag say mbokk ku nekk amoon na ci wàll nga xañ leen ko parce que danga nga jàpp ne yow yaa yell ci lekk alalu réew mi yow yaa ci yell ay daaf ak ay ministre ak ay lépp bokk loolu dañ leen war a teg ci yoon li yoon santaane pour ëllëg kenn bañ ko yonent bi sallallahu alayhi bu ñu jàpp ne rek dafa balé baalewul lu mom li mu moom la baale li tax yonenté bi ne idhabu fa antum tulaqa parce que wax ji lol da ci xawa a ñëw fa antum tulaqa wul ni yéen bandi yi nga xamanteni jëlul ngeen alalu Makka bal na len yonenté bi limu balé ci jëmmam la delu ndax mom la lor mom la ñu mom lañu génne te yonenté bi sallallahu alayhi wasallam sallam génne ci jëmmam ba mu ñëwaatee bëgguñu duggaat ci islaam daf leen a baax lu tax ñoom maa dannukum anni faailum bikum ñu ne ko axun karim wabnu axin karim mu ne idhabu fa antum tulaqa dem leen libéré naa leen kon tekkiwul ni président dafay baale président defuñ ko dara premier ministre def luñ ko def def nañ ko ñeneen moo tax bu ñu nee baale nañ seen xel na dem ci xale yu ñu rey na dem ci ñun ñu tëj na jëm ci ñeneen ñi kon affaire bi lañ ko jël au sérieux su ko defee loolu mooy dund gi nga xamante ne yonent yàlla luut dund na ko ak ñene borom bi subhanahu wa taala ne fa anjaynaahu wa ahlahu musal nañ ko mook njabootam illa mraatahu ba mu def jabaram qaddarnaaha dogal nañ ñi min ghabirin bokk na ci way lab ya borom bi ne wa amtarnaa ñu daal di taw alayhim seen kaw mataran ab taw te mooy taw mbugal kon day fasaa saa a bon na matarul mundariin taw ñañu waar te waaru wuñu yàlla na ñu yàlla defal tawfiq defal ñu nasr incha allah ba nar si biir di wasalaamaaleykum wa rahmatulah التي تدعى عليه المعاند